yow përi xaalis li ngeen mën a liggéey ngeen bàyyi seen way. yow xam nga kii ma ne way wala. yow noppi noppi yow yaa seen benn. non bi taxal naa nga pare am. simili simili simili simili. bi taxal naa nga pare. pare naa ko. ça va dama dama nga teg attaque sama bopp beeg nag dama dama dama dama teg attaque dama juul juul juul juul gaaw sama bopp day mel gaaw. xale e, bu amal bii ñu laal si nii nii. lii yor naa nekk ndox la ndox ndox ndox bu dee ndox la ndox ndox ndox. lii yor naa nekk moom. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yéen seen patron. patron patron Côte d'Ivoire la dem wuti woon. dana dal. patron ba dem Côte d'Ivoire wuti woon. Côte d'Ivoire. waaw wëñ fii ba Côte d'Ivoire wala Burkina Faso. Côte d'Ivoire ma lu sama yoon si loolu. Ah. yéen ñëpp yéen a yam man fii laa naan dëj toog ba bu ñëw fi dina ma jox sama ñëw si nii wala si nee. soxna si ba sama yoon nekk si yow wax. alal lu mën a jaral sa bopp yow di ko jiitaane alal lu ma nee tegel da nga war a maandoo. xaw ma da ngay gaaral xaw ma waaye sa yooyu safuma man. fii laa naan dëj toog ni kuy. événement bu bi des yàgg tax. Eh, amoo loo wax yow doo sax góor ba bu jëm bu toll ni yow ngay nekk di làqatu fii yéen ngeen koy jàppale ci fen gi yéen a yam li la leen waxoon yéen a yam amoo loo wax na pare bu parewul soo ko daggee soo ko daggul jox ma ko defal ma ko ci puus wala sax déedéet indi naa kool. ma ne góor kenn ko toppam si. sama yoon nekk si indi naa kool. dama sël ma ko fii damay ñibbi léegi. ba mooy ñoom bi naan la parewul. amoo loo wax noppi ñaw ñetti weer. ñaw ñetti yow amoo loo noppi yow. toogay amatul fi ay mbokk tëyër toogal rek. sama yoon nekk si say mbokk tëyër say doom sama yoon nekk si say doom soo leen dugal. ma ne yow yaa ngi eh. tey tey bis yi tey bu tax nga toroxal toogal li ma expliqué la. bañu ma si dara sama ñoom génne ko bàyyi sama bët. yow da ngay dem ba fa abay bu ñu kiiyee daal la ko jox la. yéen ñëpp a yem ñu ne ngeen def après. waaw ba dama toog dama toog dama toog. alhamdulilah kii de xaw na ma rek. gis ngeen bu ma xoolee nag téere yi aussi jaar. sama mbokku téere nag yéen laay wax joxe leen ñaw jàppale. da ngeen ñaw à temps ngeen jël yi nga xamante ne maanaam ngeen yi ngeen mën a ñaw ngeen jël ko yi ngeen mënul ngeen wax ni mënoo leen ko. li ma jot a a ñam fii xam naa ko baatu dootuma dara ci déwén. événement mbaaraankat yi tabaski ñëw naa.